Euh, tey TFR moo wootee ngir waxtaan ak yéen ci xew-xewu réew mi gannaaw ba conseil constitutionnel muy kuréel bi ëpp solo ci wàllu jogante fii ci réew bi jëlee dogal ci élection législative yi weesu amoon ci fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ci atum 2002 wax ji jeex na takk wax ji jeex na tàkk moom mooy Benno Bokk Yaakaar moo jël ndam li Benno Bokk Yaakaar am na benn million ci ay xob ak téeméeri junni ak lu ko ëpp ci ay xob Benno Bokk Yaakaar gañe na ñaar fukki gox ak juróom-ñeent ci ñeent fukki gox ak juróom-benn yu nekk ci biir réew mi Benno Bokk Yaakaar am na juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay député fee ci penku ndaw réew mi loolu day wane ne jogante ñuy weesu muy élection législative yi Benno Bokk Yaakaar moo gañe Benno Bokk Yaakaar moo gën ndam li ñu ciy sant yàlla bu baax di te mu Sénégalais yi bu baax a baax a baax muy élection yu am solo élection yu am ci dal am ci jàmm am ci tey am ci njub observateurs nationaux yi observateurs internationaux yëpp rafetlu ko ñu ci sant yàlla encore une fois te ñëpp xam nañ ni jogante yi dafa am ci contexte bu am solo bu métti ndax dañu jóge ci mbas moo xam ne dafa wër àddina nërmal koom-koomu àddina bi yëpp muy Covid 19 gën nekk itam ci xare boo xam ne dafa xew ci diggante ñaari réew muy Russie ak Ukraine. xare boo xam ne dafay indi ay jafe-jafe ci wàllu pétrole wàllu blé ci àdduna bi yëpp bu ñaari yooyu weesoo li ci topp mooy ku jege ñu jàkkaarloo dañu nekk ku goo xam ne gëmuñu yàlla ci li ñuy def jiitaluñu as intérêt askan bi seen bakkan seen nafsu seen intre bopp rek dong moo leen tax a jóg te kàddu ñu fi yëkkati yëpp du kàddu yu defar du kàddu yu demal réew mi kanam malgré jafe-jafe yu bari yooyu yëpp sénégalais yi président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar lañ joxaat ñu ciy sant yàlla encore une fois di ci gërëm euh, sénégalais yëpp bu baax a baax bu loolu weesoo ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoom ñëw génn parce que keroog dafa doon taw te tarawul sénégalais yëpp génn dem wote ji ci jàmm ak salaam di gërëm ñi nga xam ne aussi ñoo organisé élection yi muy ministère de l' intérieur direction des élections ministère des affaires étrangères des Sénégal à l'extérieur ci diaspora bi ci bitim réew donc ñi nga xam ne ñoo organisé élection yëpp. muy ay kuréel yu bokk fii ci réew mi bokk ci góor gi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax élection yi ci jàmm ci dal ci tey ak ci jub la amee àddina bi yépp di ko rafetlu rafetlu transparence bi wante itam rafetlu Sénégal bi nga xam ne dafa gën a sax en tout cas ci réew ci euh, démocratie muy dëkk boo xam ne euh, dañ koy tiitaroo ci àddina bi yépp ñépp a d'accord de Sénégal réewu démocratie la daf fi sax ndax élection yi génn wane na ne Sénégal démocratie mucc na ayib amuñ lenn lu ñuy jàng feneen ci wàllu démocratie ak ci wàllu euh, élection li gën a tax nag ñun waa TFR waa task force républicaine ñu fonk te jox cër bu baax a baax jogante ñu weesu moom mooy euh, élection euh, assemblée dafa am solo lool lool ci réew ndax bésu bërëbu daje la boo xam ne ay nit ñu seen askan yebal ñoo fay daje di waxtaane lu jëmale réew bi kanam ñu fay wote ay loi ñu fay saytu di càmbar aussi liggéeyu gouvernement bi ñu fay évaluer aussi ay politique publique depuis 2016 mu yokkute ci wàllu démocratie boo xam ne président Macky moo ko indi ci réew mi li tax aussi ñu gën a fonk assemblée nationale bi dafa may enjeu ci wàllu pétrole ak ci wàllu gaz yoo xam ne yàlla moo ñu ko xéewale fii ci réew mi dañ am yaakaar que fii léegi cinq dina gën a baral euh, euh, émergence bi nga xam ne njiitu réew mi gis-gis moomu la am pour jëmale réew mi kanam bu loolu weesoo ñun waa task force républicaine ñu ngi rafet rafetlu euh, décision bu am dogal bu am solo bi nga xam ne Pape Diop président Pape Diop jël na ko mu dogal boo xam ne dafa ànd ak matt ànd ak njariñu réew mi ànd ak njariñu askan wi ànd ak luy dalal réew mi ànd aussi ci luy indi jàmm bu sax bu mucc ay bu sax dàkk aussi ci réew bi muy dogal bu am am solo ñu koy gërëm di ko rafetlu bu baax a baax encore une fois di ko féliciter ndax dogal boo xam na aussi dafa ànd ak euh, euh, courage bi mu koy jël bu loolu weesoo ñu ngi woo sénégalais yépp doomu réew bi góor ak jigéen mag ak ndaw ku ci nekk foo mun di nekk ñu bañ a déglu ñi nga xam ne wax ju bon na leen tax a jóg yàqu moo leen tax a jóg xaajale moo leen tax a jóg tas réew mi kese moo leen tax a jóg ñu déglu njiitu réew mi nga xam ne bi mu ñëwee ci lañ xam ne Sénégal am na gis-gis am na fu ñu ko fekk am na fu ñu ko bëgg a yóbbu fii ak 2035 ci wàllu émergence ñu jóg jàppale président mag Macky Sall ci liggéey bu mucc ay bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy amal ci pàcc yëpp ci wàllu économie fii ci Sénégal ñu ngi woo aussi waa APR waa Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne. ñoom ñoo jàppale président ñu gën a jóg gën a defar jaj yi gën a dëgëral taxawaay wi gën a dëggu ci li ñuy def ànd bokk day bokk baay doon benn farlu ci jàppale président farlu pour xeex Sénégal jëm kanam farlu aussi pour barrer la route ci opposition bi nga xam ne jàmmu tax leen jóg taxu jóg tas réew mi wax ju bon xaajale ak delloo réew mi gannaaw kese moo leen tax a jóg bu loolu weesoo ñu ngi. feddali suñu engagement militant suñu jàppale bu dëggu président Macky Sall ñu ngi koy yeesalaat suñu njëbal di ko tàllalaat suñuy loxo ngir gën ko taxawu ñun ñu fi nekk suñu naataay gi bokk ak ñun jamono te nekk ñu fi ñu ngi koy félicité di ko gërëm ci liggéey bu am solo bi nga xam mu ngi koy def ci réew mi fi mu ko jëlee ak fi mu ko yóbbu ak fi mu ko fas yéene yóbbu ñu ngi koy jàppale. di ko yeesal encore une fois suñu engagement di ko féliciter di ko encourager ñu ngi leen di gërëm leen di sant jërë ngeen jëf wasalaam